mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax amaat mbégte teewaat ci ndimbalu sunu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax di ñaanal ñëpp jàmm di sàkk ñëpp ñaanal ñu jàmm nin koy defee saa su ci solution info TV ah ñu leen di gërëm bu baax a baax di nuy El moo du juuf topp ab Ablaye Sanjogu maa jigéen soy bu Assane euh, ñoom Kànjeek ñoom ñëpp ah ñu ngi leen di ziar bu baax Aïcha di leen nuyu di nuyu ñëpp di nuyu Cheikh Baara Ndiaye suñu xarit suñu borom yàggal ko fii mu wér ba dellusiwaat ci jàmm aussi di nuyu ñëpp di ñaanal waa réew mi ci gàmm gi ñu jëm yàlla nañ ci egg ak jàmm lépp luñ ci ñaan yàlla na ko suñu borom nangu di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di wax rek nii tey jii dañuy waxtaanee actualité. actualité bi nag comme ni nga koy defee sans su ne rek ci 30 minutes chrono solution info TV di wax leen ni yéen a ngi suivre di seetaan mais aussi bëgg nañ ngeen di partager mais aussi seeni i commentaire dinañ ciy bàyyi xel bu baax a baax ndax dinañu jëriñ lu bari euh, tey nag ñi wax ci dem ak président Macky Sall ca réewum Amérique ci ndaje mi waa Nations Unies doon amal te nu yuuxu ko fa diaspora bi may ñu ko dara. loolu dinañ ci wax après dinañ wax ci beneen point ñeel Amadou Ba tamit dinañ ci wax ak candidature am mais day njëkkee ci kii di président Macky Sall ak digganteem ak waa Pastef ak li ci dox yépp ñi naan président Macky Sall lii mën na ci jàngee dara danoo xamul Macky Sall man loolu laa jàpp <laughs> ma ni maa ko xam de mais. man dama jàpp ni Macky lépp lu mu matt dina dagg man loolu laa jàpp loolu tax képp kuy xaar yolomal ci digganteem ak Pastef moom yaa ngi nax sa bopp kon waa Pastef wala jël seen garde ñoom tamit xam fi ñuy taxaw xam kuñ ko seqal mooy kan parce que parti boo xam ne ba mu juddoog tey ji lim fi def yépp waxuma la parti bi waaye turu parti bi sax Macky pour mu tudd ko problème la waaye njiitu parti bi sax pour mu tudd turam problème la loolay wane ni ki dul tudd bu sañoon du la gis ak ay bët waaye ten du la dégg ak ay nopp maanaam bu sañoon doo exister te waxtaan wi mu seq ak tubaab yi ca bitim réew jëmee ko ci Pastef mooy dëggal loolu mooy biñ ko laajee ci tas gi ñu tas Pastef moom président Macky moom daf ko jàpp ni lu muy assumer la ndaxte Pastef c'est un mouvement insurrectionnel noonu la ko tuddee kon li mu gëmoon ak ni mu jàppoon Pastef démb ak tey ji noonu la ko jàppee kon bu jàppeetu ko ak parti politique mais mouvement insurrectionnel tey jii MFDC ab mouvement rebelle la bii fippu 82 tey ji li dee ci réew mi bari kenn tasu leen pour pourquoi ma Macky tasul MFDC wala boog mosuma yëg ni taxaw nañ pour tas MFDC mi ngi existé ba léegi te MFDC boobu buñ doon wax mooy ennemi public numéro bu bu réewum senegal ndaxte ñoom ñoo fi woote fipp ay bakkan di ci rot pourtant nguur Sénégal day toog ak ñoom di waxtaan. Macky day yebal ay nit ñuy toog ak waa MFDC di waxtaan pour xool na luy utee jàmm ci biir Casamance mouvement bu toll noonu ku ko mën a xajoo nga ni doo xajoog Pastef ndaxte c'est un mouvement insurrectionnel kon ñiy xaar Macky Sall yoromal ci digganteem ak Pastef ñi ngi nax seen bopp te mbiri Fadilou Keita dëggal na ko mbiri Diomaye dëggal na ko ndaxte lan tegoon seen kaw dañ ko yokk te nin ko yokkee sax ngay xam ne ñii état bi xeex ba mu nekkoon ak Pastef bàyyeegun ko mooy kii di Fadilou Keita ak kii di Diomaye teg na leen li leen teg mais charge yi ñu teg Ousmane Sonko mais kenn condamné gu usmaan son ko kenn condamné wu ko benn justice waxul ni dañ ko jiiñ rek jiiñ googu ñu ko jiiñ nag. moom dafa mel ni weesu nañ ay jiñ léegi condamné nañ ko ñoom politiquement ci seen wax kon buñ doyloo kàddu yu président Macky Sall waa Pastef war na nañu am taxawaay waaye war nañu am xel mu ñaaw ci seen ëllëg ak ñun ko seqal parce que ñu bari dañ naan président Macky Sall ñetti weer ko dese wala ñeenti weer amatul benn enjeu mais pour man enjeu bi ko dese. mooy Pastef waratul am mais Ousmane ko waratu fi faloo ci dara kon Pastef war a bañ a nalaw war a bañ a nalaw mais aussi war a bañ a bàyyeeku parce que la xew ci États-Unis ñu yuuxu président Macky Sall ñu naan dina ci jàngale dina ci jàngale jàngu ci dara defante bi day wéy man loolu laa gëm. parce que nguur gi logique bi mu ne parce que mënoo jóge ci loolu dem toog ci télé tubaab bi ak parti politique boo xam ne yow mi koy tuddee mouvement insurrectionnel yow yaa ko jox récépissé pour mu doon parti yow yaa ànd ak moom élection 19 2019 njiitu parti boobu ngeen dem élection nga gagné ko mu nangu ko démocratiquement parti boobu dem fi élection législative dem ci local même ay coalition loo àndaloon waaye Pastef mi ngi woon ci biir. kon parti boobu tey jii xanaa tey la doon mouvement insurrectionnel léegi Pastef taxawaay boobu ñu war a am war a bàyyi xel ci nguur gi ak ni mu leen jàppee ak fi mu jëm ak ñoom loolu nag moo waral ci États-Unis mu mel ne waa Pastef yi loolu lañu xam bawoon fa Macky Sall loo xam ne mburu daju ko ci taal mu doon ngan loo xam ne mun na ko bañ a fàtteeti ci àddina wolof Njaay nag dafa ne kun fay sa bor nga mer la nga leble moo baaxul parce que nag li mu leble ci réew mi fii rek moom la ko fay fële naam sax kenn yéenewu ko ndaxte ku sañoon si njiitu réew bu demee daje ak ay nawleem ci kanami nawleem ñu sagal ko surtout comme Macky taxaw ne bëggatuma beneen mandat Macky Sall moo wax loolu loolu nag ku ko mësaan a def ci àddina surtout ci Afrique de l'Ouest gi xam ne troisième mandat baax la fi yow nga def ñaar ne bokkatuma kooku dañ doon xaar nga dem bitim réew doomu sénégalais yi tàllal la tapis rouge mais aussi tàccu la tàccu la sargal la sa kanami nawle wan leen ni kii moo fi def lu kenn deful te ku def lu kenn deful am lu kenn amul ku def lu rëy am lu rëy lii nag bu amee la Thione Seck doon wax dafa dal président Macky Sall digganteem ak Pastef Thione Seck dafa ne nga yor sa tàngalu banaana bëgguma màccloo bu kaani maa bañ maa bañ màccal sa tàngal bàyyi ko mu macc bosam mais fii li fi am mooy du macc tàngal bàyyi kenn ko mu màcc tàng bosam mais fii li fi am mooy nguurug Macky Sall nanu macci seen tàngal mais bëgg a màccloo gars yi Ousmane Sonko loo bu kaani ñu bañ loolu rek lay teg maanaam li leen bëgg a teg loolu leen mënta nangu tëj sa leader tëj sa militant ay junni nit ci kaso bi manifestation yi am ñu ci faatu ba léegi leeragul teg ci yamatuñu foofu ñu ne nan tas parti bi wolof nag dafa ne baadoole bu jubee gàcce fekk tàbbi ci du am jàmm te géwal bu reppee ci xare lu lu mu jiin xeeb ko waaye buur bu lepp ci xare lu la géwal yi jiin nga xeeb ko parce que li ñëpp doon xaar ci taxawaayu président Macky Sall mooy mujj gu rafet waaye mujj gu rafet nag li koy indi mooy ci sa dund nga dund loo xam ne sa ëllëg mën na jàpp ne indi mujj gu rafet mooy nekkatuma candidat Ousmane Sonko du ko fi nekkee maanaam problème bi yëpp loolu la te Macky sàll ak nguuram danoo jàpp ni li leen naqadi Pastef moo leen ko teg defante bi ak Pastef yëpp mooy dafa jàpp ni li leen naqadi Pastef moo leen ko teg parce que nag Macky Sall man dama jàpp ni troisième mandat bëggoon na ko. waaye Pastef ak seen taxawaay Ousmane sonk ak seen taxawaay moo tax Macky Sall ne utatul troisième mandat waaye man du ma dem waaye Sonko du dem léegi xañ ngeen ma ma nekk candidat waaye yéete seen candidat di ko fi doone yemuma ci loolu tax mais dinaa leen tëj ci kaso bi damm caabi ji waaye tas seen parti tas seen parti loolu mooy li xew ci réew mi léegi nag ñàkk bayra googu ak paan bayra googu dal nguur président Macky sàll gi ñoo ko yóbbee seen bopp man loolu laa gëm lu tax ma ñoo ko yóbbee seen bopp te loolu laa gëm mooy front yi ñu ibbi ñoo bari te wolof yi nee na ku bëgg a jooy da ngay tooñ ku la mën mais ku bëgg tamit gars yi mere la da ngay tooñ gaay waaye gars yi bu dee xale yi danoo bëgg Ousmane Sonko gëm ko yaakaar ko ni seen ëllëg bi alternative bi fu war a am ba réew mi jàkk ci seen ci loxo Ousmane ko la ne Ousmane moomu nga teg ko li nga ko teg réew mi kenn du fi mars kenn du fi conférence de presse kenn du fi yëngu ci dara démocratie bi dellu ginnaaw mu doon ay interdiction systématique yoo xam ne manifestation mënatu fi am mooy ñu toxal ko bitim réew parce que koo yàqi nalawam rek yow daf fekk say nelaw yàqu ba noppi kon jàmm ji ñu xañ ci réew mi moom la leen xañ ca bitim réew te mënoon naa ñàkk léegi nag li garaaw te neex a xam mooy un président de la république bu mel na Macky Sall pour man naqadiwul defal la parce que li mu bëgg dina la ko wax fi mu la teg dina la ko wax mais aussi ni mu la jàppee dina la ko wax maanaam Pastef Macky mënu leen a bëgg ndax Macky dafa jàppale li ko naqadi ci réew mi Pastef moo ko teg kon Pastef mu ko fi teg dina fexe ba tegg fi njiitu Pastef waaye itam tegg fi Pastef ci defante la ñu ne ak waa Pastef kon Pastef bu ñu yaakaaree ne dina leen may dara ñu ngi nax seen bopp sànq wax naa ko yamuñu ci Ousmane ko waaye képp ku ko jege. mun nga doon journaliste mun nga doon chroniqueur ba ñuy bokk ci partem sànq wax naa ko ci Jomaay ak Fadilou Keita kon waa Pastef yi bañ a daanu ci piège bi leen gars yi bëgg a tendre mooy def ci bopp ñëpp ni Ousmane Sonko war a doon candidat maanaam def ko ci bopp àddina bi yépp démb maa ngi dégg ginnaaw ministre de la justice Cheikh Yérim sekk génn di ci wax Cheikh Yérim dafa war a xam ne gënuñoo muus gënuñoo yeewu parce que stratégie bi ñuy ñëwee léegi da koy comprendre mooy Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi ku nekk ci kaso bi kan war ta dal ci moo kawam moo ku deeweyam mais nga wax ba mu dugg ci kaso bi yow bokk nga ci ñi wax ba mu dugg ci kaso bi ndax boo toogee nga ni quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais bu ndee dee ndax mbiri Ousmane Sonko jar na ko waaye Ousmane Sonko danoo war a ay mbiram yow bakkanu sénégalais yi jaral la ñu lijjanti Ousmane Sonko pour jàpp ko yow bakkan sénégalais yi jaral na la ko ñu teg ci ay weer yow seex Yérim Seck nga génn nga ni jàpp bin jàpp Ousmane Sonko baaxul ci démocratie bu Sénégal waa Pastef fi yeewu leen de ay paracétamol la leen di jox ak ay tàngal banque di leen ko naxee woykat boo waxoon na ko noonu du changé noonu du changé maanaam ngembam day yolom waaye du ko takk mukk heure bu jekkee dee yolomal ko waaye heure bu jekkee takk ngembam pour jàkkaarloog yow parce que wax jooju Cheikh Yérim wax gëmal leen di seen candidat bi mënta ne kii mënatul doon candidat balaa muy egg ci mënatul doon candidat Cheikh Yérim mooy seen waa ji tey lay xam àddina te kaso bi baax la ci boobu ndaxte kaso bi mu ne dina fa génn sax fii ak fan liñ bëgg mooy waa Pastef fi toog di xaar naan waa ji suba mu génn bu xëy ñu ne gannaaw suba mu génn ne ne ba deux mille vingt quatre maanaam dal leen ni maanaam ay dóor pour gars yi na tekk dal naan non waa ji mën na génn waa mën na génn génn ci nan ak liñ yan ci kawam lépp parce que liñ bëgg mooy waa Pastef yi na tekk nappi mbiri Ousmane Sonko ñëpp noppi ci toog ci du dundoo yaakaar. nguuru président Macky noonu la ñu def ak Karim Wade noonu la def ak Khalifa di dundee yaakaar ba élection yu weesu ba leen bëggee bàyyi bàyyi leen bàyyi Ousmane Sonko mën na ne de waaye fi ñu jaar ak Khalifa ak Karim moo tax parce que Khalifa ak Karim danoon leen lijjanti ba noppi doog indi doog leen a bàyyi mooy fexe ba Macky am deuxième mandat ñu doog leen a bàyyi parce que après jàppoon leen amatul njariñ mais bu dee ni tey Macky daf fee yor candidat am fas yéene ko campagnal fa yéene ko jàpp ba candidat bi gañu bàyyi Ousmane Sonko ban njariñ la man dama jàpp ne Ousmane Sonko dafa war a génn léegi dem déposer candidat am doon candidat am léegi mais Cheikh Yérim ci kàddoom nee na ku nu rajee ku nu rajee mënatul bokk maanaam day mel na kuy yërëm Ousmane Sonko ci biir wax ji naan non jàpp gin ko jàpp du demo day wàññi démocratie réew mi kërëb kërëb te wax nga ban jàpp ko te li liñ ci wax bariwul ñu ko wax parce que bu la jaralee quatre vingt pour cent des sénégalais dee pour ñu lijjanti mbiri Ousmane Sonko si sa kàddu kooku dugg kaso nga génnaat di wax leneen mais li ngay wax pour lal la koy nax y'a problème ce pays là on n'a rien contre les Cheikh Yérim et autres mais waxuñu ak ay dof ak ay nit la ñuy waxal looloo tax waa Pastef yi war a yeewu ci tàngal bant yu leen di jox paracétamol yeeg ñoomin seen parce que ku dégg déclaration Macky Sall ci Pastef nga xam ne ñii pareegun ak Pastef loolu moom bu la ci kenn nax candidature Ousmane Sonko xalaatuñ ko te bu nu sañoon Pastef du bokk ci kàddu Cheikh Yérim da ngay dégg mën la uti leen plan B parce que ñoom problème bi mooy Ousmane Sonko na écarté wu ci xel sénégalais ba ñëpp xam ne waru fi doon président atum 2024 parce que ñoom ñoom ñëpp seen objectif Barthélemy Dias lan la fi waxoon Ousmane Sonko 2024 warut a doon candidat na bàyyi ñu xool 2029 comme xale la mu xaar sa Seck bi mu seetee Ousmane Sonko génnaat 2029 la yóbbuwaat Ousmane Sonko nga dégg. ñoom Cheikh Yérim ak ñoom ñëpp maanaam 2024 maanaam waxi Ousmane ko waru ci am léegi Pastef piège bi leen bëgg dugal mooy piège u plan loolu dafa war a nekk un débat en interne ci Pastef di nga lanc wi ub làmb kenn du ko lanc ci géew mi Guy Marius Sagna ak ku mën ci doon mais Pastef bu nu amoon plan B sax waruñu ko wax léegi danoo war a xaar ba mu jot ñu wax ko bi ñu ko yaakaaree ci jomaay nu ko def dañ ko gën a tënk ci kaso bi. mais tey ji bu ñu feeñaloon seen plan B ba ne keneen la mais mën nañ ko gàllankoor parce que nguur la goo xam ne ñoom sañ nañ lu ne kon nan lank bañ ba tëdd ci naaj wi ci piège yi leen gars yi bëgg a tànd ak dóor yi leen bëgg dóor ndaxte nag mënoo nekk noonu démb bëgg a nekk soppee tey léegi beneen piège bi ñu bëgg a tën tank Pastef Modou laay wax de ni <laughs> mu demee la bu temps bi jeexee rek daf ma signa ah, parce que fi mu ne nii perte naa filu chrono bi yàlla dogal ñu indi benn débat Cheikh Yérim laay déglu de man ku koy déglu laa parce que Cheikh Yérim maanaam naar la boo xam ne lu mu nettali rek damaa yaakaar ni ca Berkele bi la ko jëlee <laughs> mu indi Ousmane Pastef na Pastef projet la. te mënoo wax projet ba pare di ko wékk ci benn nit nan uti plan B te bañ a nax seen bopp dinaa dikk ci lool mais balaa loolu mu ne Ousmane Sonko dañ ko doon jay ki ñuy jay xam mooy kan mooy koo xam ne li ñuy wax ki yow nekkul ci yow Ousmane Sonko xale yi jay ñu ko de Ousmane Sonko li mu doon yàlla ko def mais xale yi ñoo ko def teg ko fu ko kenn tegul waxuma la mu nekk candidat waaye bu nekkee bu sax nekkee ab takkandeer comme ci législative yi nekk sax candidat boo xam ne du candidat wu sax bi nekk ci list Ousmane day ñëw gagné élection ndax liste suppléant dem na fi mu campagne leen gagné leen tey bari na fi ay maire yi fi ne moo leen def ay maire tey jii koo xam ne bu ne xale yi joxe leen seeni mille francs ba mu mat trois cent millions xale yi joxe ko koo xam ne Guy Marius Sagna yàgg naa dem Europe moom mi ñu naan plan B wala C mais Ousou Guy Marius Sagna takkandeeru Ousmane Sonko la bu mënee dem bitim réew bitim réew génn di ko tàcc ak di ko sargal jëmmi Ousmane Sonko ak barkeem moo tax kooku du ku ñuy jaay ku ñuy jaay mooy ñuy wax ci yow loo xam ne nekkul ci yow mais Ousmane Sonko ni ko réew mi présenté mais noonu la mel c'est l'homme le plus populaire du pays Macky Sall président de la république nee na du troisième mandat dafa dem Nations Unies ñu koy yuuxoo taqandeeru Ousmane Sonko Guy Marius na ma baal noonu laa ko mën a waxee dem bitim réew ñu koy tàcc Ousmane Sonko moo tax maa ngi doog a xam lu tax Macky Sall ñemewul dem élection ak Sonko li gars naan bu ñu demoon élection balaa midi marché bi tas toujours en prison Sonko Sonko gi di bëgg a rey nit ñi ci stade yi sonkorisation bi Youssou Ndour xam na. Wally Seck xam na keneen ak keneen dem ba benn kilifa ci réew mi ñemeetu fu woote ab meeting wala ab mobilisation parce que bañ ko ko sonkoriser l'absent le plus présent ji nga loolu il faut que ñu nangu ko mais xale yi dañ ko doon jaay ak dañ ko doon lii kii kenn jaayu ko fii xale yi dugg nañ kaso nax moom xale yi li ñu waroon def pour sonk yëpp def nañ ko dee nañ nax moom sonn nañ ndax moom boo diggee kàddu Cheikh Yérim Seck dara ji bu Sonko am rek da koy bëgg dindi. mooy li xew ci réew mi du Sonko jàpp nañ ko te dara yënguwul dara yënguwul de waaye stade yi yëngu Cheikh Yérim lu ko yëngal bitim réew gay yëngu lu ko yëngal concert yi yëngu lu ko yëngal lu yëngu lu ne wala fii nan la ko yëngal moo ko ëpp doole ci nga nit ki da koy nangul wala fi dañ ne teel a nangu fal na ay duma fekk respecté wul Ousmane Sonko waxoon naa ko mars 2021 ba tey maa ngi koy wax duñ am jàmm nan ko respecté xam ni lii c'est une réalité Ousmane Sonko c'est une réalité même en prison c'est une réalité ñun ñoo ko xeeb mais waa bitim réew xeebuñu ko ndaxte Macky Sall fu mu dem di def interview ci tubaab yi balaa moo daaneel ñun ko Sonko bu sañoon kenn du ko laaj mais balaa moo daaneel ñun ko Sonko léegi nag ma ñëw ci Amadou Ba Amadou Ba démb Cheikh Yérim dafa wax. di nga li ñuy toggal Amadou Ba gëm naa ne du ñor te duñ ko yàq man loolu laa gëm parce que Amadou Ba benn defoo bi mu njëkk am man dama jàpp ni défaut la ci politique peut-être personnalité am la xamuluma ko lu bon nag yàlla rek moo tax may wax mais personnalité mooy dafa mel ne nit la koo xam day toog ñu koy defal lépp lépp dañ ko koy defal koo xam ne mënoo ja gagné Jamil Sané aux Parcelles Assainies parcelle gi ndakaaru mosoo fi gagné élection xanaa élection wu deux heures deux heures du matin te ci élection yoo xam ne Macky Sall dafa ñëw na leen teel naa leen xalifa xanaa nag mën ngeen gagné ndakaaru léegi en 2017 baat boobu maa ngi koy fàttaliku te bi ñuy gagné xalifa nee nañ boobu Bamba Fall moo jiite listu Dakar Bamba Fall yóbbu leen ballottage ba trois heures du matin dañoo xëy fajar rek ñu ne gagné nañ mais ba minuit taxawu moo gagné woon ba minuit. ñu def la fi coordinateur benn Bokar defar la lépp maanaam lépp da koy defal mais amul Ba politiquement lan la defal boppam man dama gëm ni benn Macky Sall sacrifié na ko parce que temps bi mu ko xaarloo yépp te létt ko firiwu ko parce que pour man candidature am temps bi ko desee wër Sénégal safoonteeg nit ñi waxanteeg nit ñi ba ñu wóolu la gëm la parce que Sénégal ku ñu xam ak ku ñu xàmmee la ñuy woteel léegi bu dee yow te lépp da nga kaa wekk ci élite bi. élite bi ñu ne kilifa diine kilifa aade ak kile Sénégal système des grands électeurs doxu fi du États-Unis Sénégal masse bi ñooy voté la base mais base boobu lan base boobu même bi ci biir APR sax Amadou Ba maîtriser wul base su APR Sall boo xoolee li ma naan Amadou Ba est-ce que kenn sacrifié wu ko bi ko tubaab bi laajee lan la Macky wax mooy candidat wu bennoo waxul mooy sama candidat de mooy mooy candidat wu bennoo boo ko yaakaar. léegi nga dégg un Cheikh Yérim ne ñu ni ko non sans Amadou Ba est-ce que premier tour mun na am ci élection yi ku jege Amadou Ba la mun na non mën na ne de mun na premier tour mun na ne <laughs> waaw dama gis ni daal Amadou Ba ak candidat bu Pastef bu ñu defee li ñu war a def élection premier tour alors que trois mois ci ginnaaw boobu Sonkoom mi ngi nekk mi ngi am liberté ñu ni leen bu leen mësoon a laaj dañ naan premier tour nit mënu ko gañee ci élection ñoom ñëpp. tey Amadou Ba bi mu nekk candidat lan mën a gëm ni premier tour mun na am kon opposition bi nan tey est-ce que amul lu ñuy waajal contre ñoom parce que tey lan mën a gëm parce que Pastef boobu mu ci dugal da ko dugal rek pour layalee ko Amadou Ba man loolu laa gëm pour layalee ko premier tour bu Amadou Ba mais Amadou Ba nan la mën a gagner premier tour Sénégal mais loolu ay rêve la mais c'est pas une réalité ki fi mënoon a gañee premier tour ci élection Sonko que bu ñu demee ba ne plan B mën na dem. gagné premier tour xanaa Sonko 90 pour cent bu nekkoon candidat lay gagné kon Amadou Ba dafa mel ne dafa toog am ñu koy liggéeyal préparel ko pale bi pour ñëw na ko fa dij nga ko Amadou toogal loolu nag du yomb de wala fi neneen ngir nga ñend gileem da ngay jot sa bakkan ba du yomb Sonko ci prison mu génn ku mënti doon parce que Amadou Ba pour man li ko sonal mooy héritage yu Macky dafa bokk ci parce que continuité bi mu wax ni moom lay doxal li fi Macky defoon kon Amadou Ba bu ñëwoon xanaa du day wéyal jàpp gi ñuy jàpp xale yi ndax loolu ci héritage bu Macky la justice bi ñu jàpp ni dafa nekk dafa tëddeewul yaxaanaay nekkul ndey ji seex loolu héritage héritage boobu da koy wéyal te ñun danoo bëgg suñuy doom génn bu dee new da ngay wéyal li fi Macky nekkoon mooy da ngay continuer di jàpp dangay ngay continuer di tëj mais da ngay continuer di persécuter une opposition héritage bi mooy tas ab parti politique ak jàpp gi ñu jàpp xale yi loolu lu gën a mënoon sonal Amadou bala la parce que dafa bokk ci sénégalais yi ñu xam ni danoo jàpp ni ngir mën a dem élection ci jàmm président bi fi war a ñëw pour mu jiite ci jàmm ñi ci kaso bi da leen war a bàyyi bàyyi Pastef mu nekk parti bi mu waroon a doon mais bàyyi Ousmane Sonko te mu amat ay droits civiques ak politique am. te loolu du amaru Ba bi moo koy teg suñu loxo tey ki sénégalais yi di fal il faut que mu wax leen fan la jëm ak prisonnier politique yi fan la jëm ak justice bi fan la jëm ak Ousmane Sonko fan la jëm ak Pastef teg ci loxo lu leer ci sénégalais yi sénégalais ne ah kii de bu ñëwee jàmm am mooy bu ñëwee dajale sénégalais yi jubóole leen ba ñëpp ànd doon benn sénégalais yi candidat mel noonu lañuy xaar beneen bi ci topp li jëm ci mal gouvernance képp ci ngu gu bokk ci nguuru Macky Sall lépp lu la mën a jën ci inondation ci xaalisu Covid tey jii yaa ngi ci liberté Amadou Ba ñëwee nan lay def ak ñooñu bu dee ci continuité la ne mais ci impunité la ñuy continuer mooy ku ànd ak ñoom dangay ngay toog muy dox ngay def lu la neex te kenn du dox sa kaw te sénégalais yi bëggatunu bu mel noonu te moom nee na continuité lay def mooy tey ji nit mun na trafiquer ay faux billets def lu ko neex jaay ay passeport def lu ko neex mais ci nguur gi nga bokk mën nga am liberté di dox say soxla jamono jooju ay xale yoo xam ne dañ doon manifester rek li leen yoon may la résistance nga jël leen ràpp ci kaso bi bu dee Amadou Ba lan lay doon loolu lay doonu ci Sonko lan lay doon ci Macky Sall xale yi duñ wóolu Amadou Ba parce que liñ dund ak Macky ñun ndaw ñi ci dund gu seer. ak bilan wu un bi ñu ko présenté moom Amadou Ba ak dëkk bi ñàkkum xëy gi am ci gone yi ak li jëm ci ñàkk juboo sénégalais yi ànd bi sénégalais boo gis am na lu mu jàppal moroomam li jëm ci wàllu liberté d'expression waxuma la rajo waxuma la tele wala internet mais TikTok sax mënatul am senegal bu dee continuité ci loolu la nar wékku ñun ànduñu ak Amadou Ba immigration clandestine ndaw ñi gedd réew mi di dem di deewi dee gënal leen dund loolu bu dee Amadou Ba loolu lay érité ci président Macky Sall Amadou Ba du gagné parce que nag tey jii li ma fi wax ci ay problème bari na mais problème yooyu ki bëgg jëlaat réew mi da ciy indi ay solution mais Amadou Ba ñëwul pour nekk solution mais dafa ñëw pour nekk la continuité de Macky Sall te ki xool la xew ca bitim réew ak liy xew ci réew mi nga xam ne nit ñi doyal nañ ci Macky Sall ak képp ku mu àndal ak mbër mu nar a ngemb Macky bu ko leeroon day gañe day dem gañal boppam waaye ku mënul gañal boppam képp ku mu digg ni mën na la gañal dalay nax mu doonoon tey jii xalaatu buñu xataab walla trent minutes euh, chrono ci solution info TV waaw di jégalu bu baax nag di ñaanal ñëpp jàmm des fois réew mi il faut hausser le ton wax ci kaw ah. parce que nag gars yi dañu bëgg a jàppe ay ngaaka te ñun ngaaka ah. di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaw noonu la di nuyu El moo Modou Diouf di ko gërëm di nuyu Ablaye ak euh, Top ñi jàppoon ci liggéey bi di ñaanal ñëpp jàmm Omar bun Xattaab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi gàmmu jàmm incha allah kon bun gàmm jee ñëwaat rek dellusiwaat ci liggéey bi jërë ngeen jëf.